L'Airly TV, la lumière du Coran et de la Sunna. Abonnez-vous. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه أما بعد بكي جلدي maa ngi dénk sama bopp ragal yàlla di leen ko dénk ñu xam ne lislaam dafa tegu ci ñaari cosaan ñaari reen yoo xam ne ñoo téye lislaam te mooy gëm yàlla ak jëf-jëf ju baax ñaar yooyu mooy yoonu aljanna waaye mooy yoonu mucc ci safara yi tam برمنا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار بقال نيغم يالا تي جف لو باخ نكات نيوم ام نان سونو بروم دا لين فاي اجنا يو خامني دخ يا ngay daw ci suufam suñu borom ne innal ladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdausi xaalidiina fiiha laa yabguuna anha xiwala suñ boroom ne ñi gëm yàlla ngëm yàlla gu wér ngëm yàlla gu wér nag buñ ko waxee mooy tawxiid di jëf-jëf ju baax jëf ju baaxit it mooy la suñu borom yoonal la mu digle defe ko na ko yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jàngale te mu sell loola mooy al amalu saalix muy tudd jëf ju baax suñu borom ne ñi koy def day am nañ aljana yoo xamne moy aljana firdaus moy doon seen way te nag dañ fay sax tak te itam bu len sappi bañ fay sakko joge ngëm yalla ak jëf-jëf ju baax moy sabab bi tax nit ki gindiku suñu borom ne innal allazina amanu wa amilus salihat yahdihim rabbuhum bi imanihim ñi gëm yàlla tey jëf jëf ju baax suñ borom dana leen gindi teg leen ci mustaqim ci sababu seen gëm googu tajri min al anhar fi jannati naim dex yey daw ci seen suuf ci aljana ji nga xam ne lépp ci ngëm yàlla ak jëf jëf ju baax ci la suñu borom tabaraka taala di defal jambi, bi cofeel ak mbëggeel ci xoli nit ñu bax ni ñi ne ci asamaan muy malaayika yi ak ñu nekk ci kaw suuf muy bindéef yi yépp suñ borom day tàbbal ci seenub xol bëgg kooku suñ borom ni inna allasina amanu wa amilu salihat sa yajcalu lahum rahmanu wudda ñi gëm yàlla tey def lu baax suñ borom da leen di defal ak cofeel ak mbëggeel ci xol yi bindéef yi ci ngëm yàlla ak jëf-jëf yu baax suñu borom tabaraka taala daf ciy faral jaam bi ay ñaawteefam borom bi ne wallasina amanu wa amilu salihat lanukaffiranna anhum sayiatihim wala najziyannahum ahsana allazi kaanu yacmalun ñi gëm yàlla tey jëf-jëf ju baax danaa leen faral seeni ñaawteef te danaa leen fay lëgg na rafet te lañ doon jëf ci ngëm yàlla ak jëf-jëf ju baax ci la jaam bi di bokkee ci ñu baax ñi suñ borom ne sina amanu wa amilu lan lanudxilannahum fi salihin ñi gëm yàlla tey jëf-jëf yu baax dana leen tàbbal ci biir ñu baax ñi ñu bokk ci mbooloo bu baax ci ngëm yàlla ak jëf jëf ju baax ci la jaam bi di amee yool ak pay goo xam ne du dagg benn yoon إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون am nañ pay goo xam ne du dagg fu ñu toll rek ña ngi cay jot ci ngëm yàlla ak jëf-jëf ju baax ci la suñu borom tabaaraka wa taala di génnee jaam bi ci ay lëndëm yóbbu ko ci ak leer génne ko ci lëndëmu kéefër yóbbu ko ci leeru ngëm yàlla génne ko ci lëndëmu bokkaale andi ko ci leeru tawxiid génn génne ko ci lëndëmug réer andi ko ci leeru xam suñ borom ne li yuxrija allazina amanu wa amilu salihat min azulumati ila nur suñ borom day génne ñi gëm yàlla tey jëf-jëf ju baax génne leen ci xeeti lëndëm yépp yóbbu leen ci leeru njub gi nga xam ne mooy leeru suñu borom tabaraka wa gi mu wàcceel jaam ñu ngir ñu gindi ko ci ci yàlla ak jëf-jëf ju baax ci la jaam bi di bokke ci ngën ji mbindeef yi ñi gën ci mbindeef yi borom bi ne inna lasina amanu wa amilu salihat ulaika hum xayrul bariya ñi gëm yàlla tey jëf lu baax ñooñu ñooy ñi gën ci bindeef yi ci gëm yàlla ak jëf jëf lu baax ci la jaam di am jaam bi di amee kóolute ci ne kenn du ko yokkal ay ñaawteefam ay bakaaram te sax suñu borom da ko koy jéggal waaye kenn du ko wàññil ay tuyaabaam waaye sax suñu borom da ko koy fulal borom bi ne wa man yaamal mi asalihaati wa huwa mumin koo xam ne mi ngi jëf jëf yu baax te fekk mu gëm yàlla wéetal yàlla falaa yaqaafu zulman du ragal ak tooñ mooy ñu yokk jiiñ ko lum defut bindal ko bàkkaar yum defut wala hadman walla ñu wàññil ko ay yiwam yoo xam ne yu mu def la yóbbu àqam kenn du wàññi àqam waaye kenn du ko teg itam lu mu defu ci ngëm yàlla ak jëf-jëf ju baax ci la jaam bi di wóoloo ne ay jëfam du sànk te ay jëfam itam du yàqu borom bi ne fa man yaamal min as-saalihaati wa huwa koo xam ne mi ngi jëf-jëf ju baax te fekk mu gëm yàlla fala kufraana li saali kenn du xarab jëfam jooju kenn du réere jëfam jooju wa inna lahu kaatibuun waaye sax dañ ko koy bindal bu demee ëllëg ñu fay ci ngëm yàlla ak jëf-jëf ju baax ci la jaam bi di amee xol bu dal ci lay amee itam bakkan bu dal ci lay ñàkk a gestoo dara ci mbiri àdduna yoo xam ne mën naa jaxase xolam yooyu duut ko suñu boroom da koy wërsëgal wërsëg wu teey ci loo xam ne sax du ko foog سن بروم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون كو خامني ميغي جيف لو باخ مو خام غور لا ولا جيجين تا فك مو گم يالا دا نكو دوندال في تي ادونا دوند بو تي دوند بو خامني لو تي لا كوي دوندي تال ليكو في اندي موي جامو يالا وايي دا نكو فاي الله la gën a rafet ci la nga xam ne moom la doon jëf ci ngëm yàlla ak jëf-jëf ju baax ci la doomu aadama bi di mucce ci perte suñ boroom ne wal asr innal insaana la fi xusr nee na nit daal ñépp ñi ngi ci ak perte ñi ca génn mooy illa allazina amanu wa amilu salihat ñi gëm yàlla tey def lu baax ñooñu rek ñoo perte wa tawaasaw bil xaq wa tawaasaw bi sabr di dénkante deug dénkante muñ ci ngam yàlla ak jëf-jëf ju bax ci la jaam bi bokke ci ñinga xamne wuyu nañu suñu borom tabaraku taala ndax borom bi nee ya yaa sina amanu stajibu lillahi wal rasul yéen ñi gëm yàlla wuyu len yàlla wuyu len ngir ab yonentam isa daakum lima yuhyikum way nee ñi koy wuyu nak moy ñi gëm yàlla tay def lu bax wa allazina amanu wa amilu salihat ويسيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد نانا نيو نيو ووي ووت بي الله بوم لين ووي تي توحيد دنا نكو ووي بوم لين ووي تي جامو يالا بان كو بوكال اك دارا دنا ووي لولا بوم لين ووي تي ني توپ يونت بي صلى الله عليه واله وسلم دنا ووي لولا بوم لين ووي تي باي يو حرامي دنا ووي لولا تا باي كو لپ لو لين سوجي بوروم ديغال رك ولا مو تري لين كو دنا نتوپ ديغال لا سين كم كاتان باي تي loolu ñi gëm yàlla tey jëf-jëf ju baax ñooñu la suñ borom di tawféexal bañ mën a def lu mel ni bokki jullit bu ñu seetee xéewal ak jagle yii nga xam ne yépp suñu boroom jagleel na ko ñi gëm yàlla tey jëf-jëf ju baax kon kenn ku nekk da nga ngéejoo bokk ci ñoom waaye nag suñu borom melal na leen ne nee nañu néew lañ ah lu néew nag ku ca a bokk danga nga farlu lool ndax nee na wa inna kasiran min al xulata lu baree baree bari ci nit ñi boo jaxasoog ñoom di jëflante la yabxi baaduhum ala baad da nga ca gis ñenn ñi di jéem a jalgati jéem a noggutu ña ca des bëgg leen a ëppale ca lañ seet loola ñu ko dul def illa lazina amanu wa amilu salih lu muy ñu gëm yàlla tey def lu baax ñooy ñooy ñi nga xam ne lu ñu seq ak nit duñ ko ca lor seen àq rek lañ cay jël waaye duñ jël àq keneen borom bi nag ne wa xaliilum maahum yow nag ñu néew a néew a néew lañ ñu néew nag ku ca bëgg a bokk da nga góorgóorlu bu baax a baax a baax li waral ñu néew mooy mën nañoo woote wa ngëm yàlla waaye ngëm yàlla day yomb lool bokkaale tàbbi ci te bu ca bokkaale tàbbee rek ngëm yàlla ga firiku na danañ jéem a def lu baax itam waaye lu baax boo ko defee bokkaale tabbi ca jëf ja sippiku na borom bi nee na wa maa yuminu aksaruhum billah illa wa hum musrikun nee li ëpp ci nit ñi duñu gëm lu dul ne boole nañ ca nekk ay bokkaalekat te bokkaale moom su xasee dugg rek bokkaale doo nga fay des waaye ngëm nekkatu fa nit ki mënta tudd mu'min di tudd musrik leen lu ci ne turu boppam la mu'min mooy ki gëm ngëm yàlla gu wér gu ànd ak tawxiid nga xam ne yàlla rek la gëm kooko tudd mu'min waaye ki nga xam ne dugal na ca bokkaale kenn du ko wooyee mu'min musrik waaye musrik rek lañu koy wooyee musrik rek lay tudd al musrikoon rek la tudd donte am na dara ci ngëm nee na waaye ngëm nga lam ca dugal moo ko yàq ñam yi ngay jëfandikoo rek léeg-léeg dara sàbbi ci rek nga tuur ñam ba yépp te moo ñam ba lépp yàquwut waaye la ca dugg rek yàq na lépp yàlla itam noonu la mel bu ci bokkaale duggee rek ngëm yàlla moom nekkatu fa suñu borom tabaraka wa taala wax yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ko wax yu naa la ni ma wax yu woon ñi la fi jiitu woon ci ay yonent ne la in asrakta la yaxbatanna amaluk soo bokkaalee sa jëf yépp dina sippiku mboolem li nga jëfoon lu yàgg-yàgg yépp a yàq du jëfi léegi ji rek moo yàq waaye li weesu woon lépp dafay sippiku te kookee bokkaale nag day daal di bokk ci ñu perte ñi ndax ku say jëf yàqu ëllëg yoomal xiyam amoo fa dara la ngay fay am rek mooy ay sa at ay ñaawteef rek nga fay am mbokki jullit yi nañu jéem a wéeral sunu ngëm yàlla fu ñu toll di ko seetaat ndax kat suñu borom tabaaraka wa taala lim nu dénk mooy bu ngeen di faatu na fekk seen ngëm yàlla wér na fekk seenum jullit wér wala tamutunna illa wa antum muslimun lu muy dénkaat bi ngallaawaay bu leen faatu lu may fekk ne ngeen nekk julli dëgg bi ngeen bi faatu moo tax ko nit ki fu mu toll nay seetaat pas-pasam nay wéral taw tawxiitam nay wéral euh, jaamu ki muy jaamu suñu borom tabaaraka wa taala ci bañ ko ci booleek dara loolu nag la ciy dimbali nit ki mooy mu xam melokaani suñu borom tabaaraka wa taala ndax ñiy bokkaale li leen ciy dugal léeg-léeg mooy dañuy jàpp ne lii ñu soxla moom yàlla yàlla du ko defal kenn. naa wuti feneen fu ñu ko defee fu ñu ko amee ndax suñ gëmoon ne lépp yàlla moo koy def loolu doo soxla keneen di ko wuti ci leneen saa booy wuti keneen wala ngay seet keneen rek da ngay jàpp ne fi nga nekkoon li nga yaakaar dafay amut waaye soo xamee melokaani suñu borom yi xam ne moom lépp la man inna allaha ala kulli shay'in qadir suñu borom tabaraka wa taala telewul dara moo tax ñuy wax xasbuna allahu wa ni'mal wakil loolu yàlla doy nanu te baax na nekk gi mu nekk ki nga xam ne moo nuy saytu ndax bokk na ci yërmandeem ma xéewalam jaam yi bàyyiwu leen ak kenn moo leen yoral boppam allahu xaaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shayin wakil yàlla moo bind lépp waaye lépp it moo ko saytul boppam xam nga fii ci àdduna ñiy jiite am na ci cër yoo xam ne day am kuñ ko dénk ñi ne mbir sàngam diw lañ ko dénk moo tax ñuy ay ministre rek di wut ay gouverneur rek di wut ñu leen di jàppale ci nguur gi waaye yàlla moom nee na laa yusriku fi xukumihi ahadan moom nguuram boolewu ci kenn yàlla nomewul kenn ñëpp ay jaam lañ in kullu man fi samawati wal ard illa aati rahmani abda li ko waral moom dafa peeg lépp dafa xam lépp dara ump mën naa saytul boppam lépp wa huwa ala kulli shay'in wakil loolu soo ko xasee xam dootoo bokkaale ñaareel ba nga xam ne itam fa ngay yaakaar leneen foofa dara loola nekku fa fo yaakaar ne man nga faa faje sa aaju fu dul ci suñu borom tabaraka wa taala loola perte la ndax loola dara nekk fa loolee ngay yaakaar wala kookee ngay yaakaar moom itam ma ngay yaakaar lu faj aajo ak lu faj soxlaam mënu koo faj lool su ko nit ki xasee am rek dana am tawhid bu mat sëkk xelam duutu jóge ci suñu borom tabaraka wa taala alaysa allahu bi kafin abda yàlla ne moo ndax yàlla dafa doyul ab jaamu ba muy làmbutu leneen ak di seeti leneen nañu wéral suñuy jëf ci sellal gannaaw bu ñu gëstoo ba mu dëppoo ak sunna te mooy ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale bala ngaa jëf jënd jëf na nga gëstu wala nga laaj ba xam ne nii la nii lañ ko war a defee boo koy def itam nga def ko rek ngir yàlla mu sell loola mooy tax jëf ji ñoŋ borom bi kat wama umiru illa li yaabudullah loolu mooy tawxid digaluñu leen lu muy ngeen jaamu yàlla muxlisiina lahu diin ngeen sellalal ko diina ja mooy jëf yi sell suñu boroom rekk tax nga di ko def kun gëm yàlla goo xam ne bokkaaleewug yàlla dara mu ànd ak tawxiid di jaamoo yàlla ci nim la ko digale wattandiku biddaa ndax biddaa day yàq jëf ni bokkaale di yàqe pas-pas ñaar yooyu moo tax mu teg ci ne xunafaa sori lool bokkaale wa yuqimu salaa wa yutu zaka wa zalika diinul qayima di taxawal julli di joxe azaka loolu mooy diine ju jub diine ji nga xam ne mooy jariñ ëllëg borom fa suñu borom tabaraka wa taala wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain